Euh, fës ci mbir mi ak daal di jaaxal nit ñi. Mhm. Euh, jéggi na sax li nga xam ne mooy mbir bi nga xam ne moom moo xew ci euh, wàllum Doro Gueye ci ndoddam waaye jéggi na loolu ba dem ci mi nga xam ne à chaque fois dañ leen di tudd di toftal ay door a géey comme ku ci mel ni Clara. Mhm. ak ki nga xam ne moom moo di voilà. moom moo di euh, Racky Aïdara loolee nag euh, li ko waral du leen lu dul euh, depuis démb bi ñuy xamal ni que foofii ci section de recherche jafe-jafe amoon na fa xeex am na fa wala xeex am amu fa mhm. ci diggante do ki nga xam ne moom moo di ay dara ak Clara loole li ñu ko xamal du lenn lu dul publication yi ñuy gis démb ba tey mhm. ak ñi nga xam ne depuis boobu ba tey ñu ngi wax bu ci njëkk moo di si looleen ne Euh, di benn page euh, Facebook euh, bi nga xam ne ñoom ñu ngi daal di junj que ni dafa amoon li amoon li xewoon foofee ci session de recherche. Mhm. mi ngi wax ni voilà ma ni ngeen yeewu laa wax waa ñaareelu MG. Mhm. ak ñetteel baa ngay xeex ci commissariat ba. Mhm. ñaareel bekk songu nag tey nag lay soog a gëm ni RA takk nañ ko nag. voilà che euh, mg am nga mhm. problème nag maa ngi euh, ñëwaat euh, pour plus d'infos loole di ay mbir yoo xamante ne mhm. benn publication la boo xam ne ju junj la ce qui ne signifie fii pas que ni peut-être xeex boobu am na wala amul et que loolee en aucun cas wanewul benn yoon que ni voilà ñoom ñaan ñooñu ñu fa parce que tur rek la ñu daal di voilà la ñu daal di Euh, abrégé suñu xel yi di dem ci ñenn ñi nga xam ne dañ leen di tudd ci mbir mi bi ñu toppee nag ci commentaire yi ñu ngi fay gis ñu fay mentionné turu ki nga xam ne moom mooy ay dara mm-hmm. ak turu Doro euh, voilà ba tey ci suñuy ay euh, ay ay ay topp rek loolee tax na ba ñu daal di creuser démb TikTok bi ku ne xam na ne ay live yu bare bare ñu ngi fa doon am mm-hmm. ba ñu daal di nekk ci live Cheikh Ahmed Cissé nga xam ne am na benn benn benn taskatu xibaar wala boog benn animatrice boo xam ne ñun ak moom ñun ñoo bokk milieu bi moom aussi. Mhm. démb duggoon na ci live fu Ahmed Cissé mi ngi xam ne ni que am na ñi nga xam ne ñu ngi nekkoon euh, ci alentour fi nga xam ne moom mooy section de recherche ñu ngi koy xamal carrément que ni. Mhm. ñaar ñi nga xam ne ñu ngi leen di tudd ci mbir mi ñëwoon nañ fa même bu fekkee ne moom ci live bi du tudd seen tur. parce que mhm. wóorul comme ñun la ñuy def nii rek. ndax mbir mi boo ci amul source. surtout ay dégg nga ci am aussi donc comme li nga xam ne moom mooy waa si loo ne. ni ñu bindee nga xam ne ci ci publication bi jusqu'à présent suñ fa fu ñu mentionné ay tur mm-hmm. mais boo duggee ci commentaire da ngay gis ni que dañ fa def turu Racky ak ki nga xam ne moom moo di euh, Clara moom moo di Clara ci noonee aussi la suñu naataango boobee doon waxtaan ak Cheikh Ahmed Cissé mm-hmm. di ko xamal ni que ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon autour de de de la session euh, recherche bi nga xam ne moom mm-hmm. moo nekk fii ci euh, Dakar ñu ngi ñu ngi ñu ngi xam ne ni que ki nga xam ne rek moom voilà moom moo di euh, voilà ñaar ñi ñu mm-hmm. ngi fa woon et jafe-jafe amoon na seen diggante mais xeex amu fa woon mm. xeex amu fa woon euh, bi loolu weesu aussi gis nañ ñu mais xuloo nañ non ay wax amoon nañ fa ba ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo jege woon ki nga xam ne moom mooy euh, l'homme en question ki nga mm-hmm. xam ne moom moo di dooro mm-hmm. daal di téye kenn ki voilà daal di calmer keneen ki nga xam ne moom moo gënoon a mer mu daal di euh, yéegaat ci otom mhm. waaye loole aussi bi bi biñ ko xalaatee ak bi ñu ko càmbaree lépp dee ñëwaat ci benn mbir mooy kenn ki nga xam ne moom la ñuy tudd bu fekkee ne démb coole amoon na wala boobu bu fekkoon démb sax tegoon na fa tànk muy ay dara mi nga xam ne ñu bëree bëri ñu ngi doon xam ne ni que dañ ko takk takk suuf. Hmm. et ki ko takk du kenn ku dul doora. parce que depuis booba tey moom rakk yi mi ngi rek euh, di nëbbatu. Hmm. Euh, ba nga xam ne ñu bëree bëri ñu ngi demoon ba nekkoon ci dileem di lëndëmal ci xel yi voilà ba nit ñi jusqu'à présent xamuñu woon. kan moo nekkoon borom këram ba ñenn ñi sax dem nañu bay wax ni que ku tudd Modou géey la. Mhm. ñenn ñi dem ba jàpp ni que du Doro Gueye en tout cas. moom euh, rak yi téewoon na mbir bi ba euh, deux jours euh, avant li nga xam ne moom mooy mbir bi wala boog daal di def benn live di xam ne ni que mhm. moom takk nañ ko et lépp dafa xewoon rek ci li nga xam ne rek moom moo di euh, discrétion loole mhm. laa leen bëggoon ñu indiwaat ko rek daal di dégluwaat rakk yi bu ko defee ñu daal di ñëwaat ci nu mu gën a yaatoo ci suñu analise euh, ngir rek mën a. Euh, ñëwaat rek wala boog di sampuwaat laaj ba xam lan moo waral mbir mi yëpp bu fekkee ne dañu jàppoon ni que wala boog daf ñu doon gëmloo ni que kenn takku ko ñu demaat ba mu yàgg mu ñëwaat ci mariage am di xam ne ni que euh, kenn takku ko takk suuf ñu daal di ko déglu moom rakki bu ko defee ñu daal di ñëwaat. dispute euh, et attendons un peu alors. On a attendu. Après, on continue à se parler et tout, et tout, et tout. Après, il m'a dit, moi, je suis, euh, je suis pas là à faire des relations à deux balles. Soit c'est on se marie, soit c'est tu pars, je pars. Parce que moi, j'ai une communauté derrière moi, je ne veux pas de problème et tout ça. Je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci, donc on se marie. Quand on a décidé de se marier, je lui ai dit, moi en personne, mon premier mariage, j'ai eu un bad buzz. les gens ont parlé de ça sur les réseaux sociaux partout dans le monde. Je n'ai plus envie d'exposer ma vie de couple, de mélanger ma vie de couple et ma vie euh, professionnelle. Mm. Je veux qu'on connaisse la Rakia Aïdara qui est la deuxième civile, pas la Rakia Aïdara qui Madame telle personne. J'ai fait mon mariage en secret. J'ai fait mon NPM comme toutes les filles. On a eu tous, on a fêté. Je n'ai invité Alors, personne. personne. Je n'ai invité, je répète, je n'ai invité personne. J'ai invité que mes amis proches. Il y en a qui sont venus et il y en a d'autres qui n'ont pas eu l'occasion de venir. J'ai fait mon shooting de mariage, j'ai fait ma vidéo. Il y a une des vidéos qui avait fuité et que les gens en parlaient de ça jusqu'à que j'avais décidé de porter plainte parce que je tiens à mon image. Je ne veux pas de problème. Je ne veux pas rentrer dans la vie de quelqu'un. Déjà, moi, j'ai trop de problèmes et que je lui ramène d'autres pro problèmes. Déjà qu'il a une femme, je suis deuxième femme. Tu vois un peu. Donc, okay. et je n'ai pas envie d'être là qu'on fasse des collages. Ah, tu as vu la première, c'est qu'elle a bossé. Tu as vu la deuxième Non. Moi, je veux juste qu'on parle de mon boulot, de, ouais. qu'on parle de Raki qui fait que biser, de Raki qui a la désactivité. C'est pour cela que j'ai décidé de cacher mon mariage. Mais c'est pas un mariage secret. Un mariage secret, tu le dis pas à ta, à ta famille. Ouais. tu ne le dis pas clair. à tes amis. Si j'ai décidé de l'appeler meilleur gâteau, c'est parce que c'est un meilleur gâteau. Ah. C'est mon M. Je l'appelle meilleur gâteau, c'est pas son nom. voilà madame MD ni ñu ko doon woowee ginnaaw bi lii yëpp balaa bi yëpp di feeñ. moom rakk li mu ci xam xam ne rek mooy que ni moom moo am habitude di ko woowee meilleur gato donc loolu loo waral MJ bi nga xam ne moom la doon woowee boppam ma madame MJ mm. beneen bi aussi mooy que nii wa ñëwaat na ci rencontre ñoom ñaar ñu xamante ba mariage ñëw seen diggante mais li taxoon moom bëgguloon fësal mariage bi du lenn lu dul. Euh, que ni kim nekkal voilà dafa am communauté bu nekk ci ginnaawam beneen bi aussi nii dañ ko xam et que voilà dafa am soxna. et bëggul moom également tout le temps ñuy indi ay jafe-jafe ci dugg ci seen diggante kii mooy aaw bi wala kii mooy ñaareel bi di indi ay coow seen diggante comme ni ñu koy gisee actuellement hmm. ci toppkatukaay yi à chaque fois ni ñuy def ci diggante euh, bon ci ci couple yi wala boog ci ñi nga xam ne euh, dañuy wujjee te bu fekkee ne aussi mariage dafa secret doo ko wax kenn koo xamante ne ku la jege la wala boog doo ko wax kenn koo xamante ne wax dëgg yàlla sa parent donc moom takkuñ ko takku suuf mais moom moom moo décidé woon euh, daal di jël euh, li nga xam ne rek moom moo di mariage bi def ko euh, def ko d'une manière discrète nga xam ne voilà ñi ko war a xam nañ ko xam nga xam ne moom kenn du wax ci wàllu mariage mais ci wàllum liggéem ni ñuy wax ak voilà ci wàllum liggéeyam comme par exemple tey animatrice bu mu doon foofee ci 2STV ak aussi actrice bu mu doon doon incarné rôle kat yi ci série li nga xam ne rek moom moo di euh, cœur brisé li tax sànq ba tey maa ngi lay wax ni que li coow a Gueye di am lépp li jaaxal nit ñi mooy que ni lan la moom kat euh, yi euh, mm-hmm. wala boog moom rak yi présence am foofee ca section de recherche ndax mbir mi day dëggal ni que moom soxnaay a Gueye la ek da ko doon nëbb wala boog voilà connaissance la bu fa ñëw ak bu fa ñëwee aussi bu fekkee ne lii ñuy wax dëgg la que ni jafe-jafe amoon na seen diggante mm-hmm. lan la amante ak Clara bay jote ak moom xam nga euh, Moussa man bon ni ma mën a interpréter mbir mi mooy. Mhm. bien vrai que ne du ma dugg ci vie vie vie personnelle lu mhm. moom la concerné li tax mu nëbbu mariage am li tax tamit tey jii nii kenn xamul kan mooy jëkkëram et tout euh, moom la concerné euh, loolu peut-être dañ ko koy nagul mhm. mais Sénégal lañu nekk te gis nga Moussa. dafa am yoo xam ne kenn mënu koo nëbb. Mhm. surtout yow nga ne célébrité nga. Mhm. surtout yow nga ne nitu média nga. tey même bu bu doonoon mariage boo xam ne parce que ñu bëri ñu ngi naan mariage force mariage. Euh, takk suuf la et tout. Mhm. Euh, donc euh, tey jii nii xale bu jigéen bi. bu fekkoon mariage bi mariage secret la maanaam bëggul kenn xam ko xam nga am na ñoo xam ne dañuy marié. maanaam def ko en intimité et tout sans pour autant que nit ñi xam ko mais après lendemain ba dinañ génnee photo yi. Hmm. mooy yoon sax. dinañ publier photo yi. Hmm. génne vidéo yi wane ne ah diw de da doon kan la mariel kenn xamul. Mm. loolu peut-être on peut comprendre que ne loolu mariage la boo xam ne bëggutoon kenn xamu ko. Mm. bëggutoon nit ñi ñëw si mariage ba di ko déranger walla mu muy am ay maanaam affaire bi di doon loo xam ne comme par exemple sénégalais yëpp di ci wax et tout. Mm. mais le le mais gis nañu peut-être video génn na walla foto génn nañu wane ne voilà diw dañ doon ko marié mais nit ñi xam fan lañ gisee ci mari mariage am. photo page Instagram am bi mu changé def marié. fa la ñu bëri xamee ne dañ koo marié mhm. en plus de ça at benn photo bu fuité woon mhm. ñu wane mu mel ni day def anytime mhm. donc cela veut dire que ne yow même boo naree def benn mariage boo xam ne c'est secret say xarit dinañ fuité vidéo dinañ fuité photo dinañ fuité lépp li nga xam ne xew na ci mariage bi mais ba tey kenn xamul xam nga loolu yëpp kenn xamul. dëgg la mais ba pare imagine toi yow ñu lay sedd ci gaalu xaj. Hmm. après ñu wëlbatiku di la gis nga fay lekk. Hmm. yow nga wëlbatiku. Hmm. yow kooku ki nga xam ne moom la ñuy jiiñ ne yow kooku nga mariel kooku am des problèmes après yow ñu gis la section de recherche. voilà yow après nit ñi lan lañ koy interpréter. après ñu lay tudd ci ay wàllu ñu lay ngay xeex. mais ku jigéen ki am na droit parce que kooku moom mooy. femme légitime mm. mm. bu ko neexee xale bu jigéen ba bu ñëwee. non mais mais nag mais mais nag mais nag mais nag mais nag est-ce que tamit euh, tamit. Mm-hmm. ñoom ñaan ñëpp aussi du ñu du du ñu du ñu légal parce que moom mi ngi xam ne ni que mbir mi bu fekkoon takk suuf la. Mm-hmm. du ko wax ay proches ay xarit yoo xamante ne dañ ko jege. Mm. du ko wax aussi. si kaay ma wax la leen. famille aussi xamoon nañ ko bu fekkoon. am na ay xarit yu jege yoo xam ne ñu nga woon ca xew ba. Mm-hmm. wala yëgoon nañ mariage ba. Mm-hmm. dinañ ko fuité sur les réseaux non si amoon na benn vidéo bu fuité woon ba muy xam ne. ni que moom non xaaral non pas anytime bi. am beneen vidéo bu fuité woon ba muy xam ne ni que après moom. Mm. toppoon na ci di porte plainte parce que moom. Mm-hmm. Euh, voilà elle tenait aussi à son image te bëggoon aussi ci période boobu noonu ñuy wax dara loo xam aussi. mais attends voilà déjà mais mais mais ma ñëw tort la wala est-ce la. voilà da daa boo xam ne da nga koy nëbbatu. voilà d'autant plus que moom jullit la mais mi ngi xam ne ni aussi que ni mi ngi xam ne aussi que. Euh, voilà même bi même bi mbir mi amee voilà gis nga Mor moom dafa bëgg kaa voilà moom dafa bëgg kaa moom mi ngi jël zoom <laughs> voilà mi ngi mi mi mi ngi mi ngi wax aussi di xam ne ni que même même même même affaire gi aussi bi mu bi mu bi mu bi mu amee mm-hmm. mooy mariage bi aussi bi mu amee. Mhm. am na ay vidéo yoo xam ne génnoon na mais man aussi bi ma creusé waatee parce que man dama lay xamal ni que mbir mi depuis booba tey kenn mun la parce que journaux yi binduñ ko binduñ ko en benn yoon binduñ ci article même bu fekkee ne. am na ay euh, détails yi nga xam ne mi ngi génn comme quoi que ni euh, moom Racky mhm. ak ki nga xam ne moom moo di euh, voilà Clara démb dañu jote woon mhm. loolee ay rumeur la rek ju am mais démb am na aussi benn live bi nga xam ne amoon na ba ci TikTok bi aussi maa ngi dégg benn femme bi xam ne ni que am na benn hôtel bu tudd xawma Azalaï hôtel bi nekk foofee ca mm-hmm. Mauritanie mm-hmm. ñu baree bari témoigné woon nañu mariage bi te ñu baree bari ñi nga xam ne jege woon nañ ko xam nañ ni que képp koo xam ne ñëwoon nga ci mariage bi mm-hmm. soo yoree téléphone doo dugg boo yoree lépp loo xam te mën na tax kenn génn ak image euh, vidéo bi du dugg comme pour diir que ni tey mën nañu jàpp ni que loolu la parce que fii amoon na aussi benn mariage bu fi amoon mariage wu benn kilifa boo xam ne ñëpp xamoon nañ ko mooy doomu Mamboy Diawo bi muy mhm. xew. Mhm. dañ doon ay téléphone dugg yooyu yëpp mën. mën mais mais mais doomu Mamboy Diawo. voilà ban la ci mooy jumelle voilà mooy jumelle ki ci doon xew ak Samba Pesé bañ ne téléphone mais téléphone dugg mais l' mhm. essentiel mooy que ne mariage boobu xamoon nañ ko dëgg la xamoon nañ ne diw ak diw non maa ngi ba tey ci la fait ñu war a mën a jàpp ni que peut am na et que amuñu image lan moo waral mariage am lu tolloog mariage mm. du délit mm. du loo xam ne njaaloo la du leneen ak leneen loo xam ne tey jii nii lislaam da koy aaye mm. après yow nga ne non man damay nëbbatu waaw ah, d'ailleurs looloo jaaxal ñëpp ah d'ailleurs looloo looloo looloo jaaxal ñëpp pour lan la voilà léegi après nëbbatu bi kan la ñëpp di naan diw la diw la gis nga Sénégal nag bu la ci kenn nax de bu mm-hmm. mu du ñu fenal kenn. Hmm. luñ la wax dëgg la bien vrai ne mën nañoo yokk ci xew bi de mën nañoo yokk ci ci xew mi karaaw nag. Hmm. mën nañ cee yokk ba saf. <laughs> mais nag duñ la fenal mu ko. Hmm. lépp luñ la xamal ne loolu dëgg la. léegi yow problème bi mooy yow ñu ngi lay waxal di la jiiñ yéen ak diw yéen ay sëy. ñu xëy gis la section de recherche loo fay def. loolu kay cela veut dire ah. ne yow si sa bopp. wéeje nga sa bopp. en tout cas mbir bi daal dinañ ko. fee nëbbu dëgg la surtout yow nga doon nitu média mënul mm-hmm. nekk c'est impossible te yow Moussa yow tey jii nii boo ne woon da xew da ngay marié tey jii nii ñun dinañ statut dëgg la say morom dinañ statut keneen ak keneen dina statut même bu mm-hmm. fekkee yow ci xëy nga ko bëgg a def mais mm-hmm. dinañ statut dëgg la dinañ fexe ba xam yow ki ngay marie kan la dëkk fan la juddoo fan la yaroo bien vrai que ne yooyu yëpp tam du du suñu suñu yoon nekku ci mais dinañ ko xool parce que dañuy xam ne yow nitu média nga dëgg loolu kese la mais amul benn problème loolu mm-hmm. mal amu ci lenn moo mën a ne mm-hmm. xale bu jigéen bi bëgg na mu siiw mm-hmm. xale bu góor bi peut-être moo bëggul ku jigéen ki maanaam jabar ji xam ne day takk beneen jabar wa wa ilaa peut-être monogamie la signé woon peut aussi tamit trop de questions trop de xale bu góor bi moom moo bëggul nit ñi xam ne takk na beneen jabar moo ah, tax ah. xale bu jigéen bi nëbb ko mais xale bu jigéen bi moom leer na ko ne en âme conscience leer na ko bu baax que ne mhm. jii nii ñaan na yàlla tey ñu takk ko mhm. mu làng devant tout le monde sénégalais yëpp di ko gis mu sigil boppam te xam ne moom aussi tamit femme mariée la woon dafa mhm. divorcé donc tey jii nii jëm ex jëkkëram boobu bu gisee ñu ne kii takk dañ ko euh, takk takk suuf wala tey jii day nëbbu jëkkëram gàcce na ci moom. dëgg la te ne day am ndam ci moom. Mhm. donc loolu lenn moo mën a am ku góor ki moom moo bëggut. Mhm. nit ñi yëg ne takk mhm. na ja soxna. dëgg la wa ilaa monogamie la signé. wala problème bi kenn xamul mais du ko jigéen ki de. dëgg la ku jigéen ki moom xam naa ne bëggoon na mu siiw ba ne fàng. ndax événement jot nga wane sa jëkkër nii. ne wala maay madame diw. di ko ndamoo. dëgg la neex na de Sénégal njaay képp kuy jigéen bëgg na ko. Euh, en tout cas en tout cas mi ngi noonu bien que ni bon. après gars yi bon di ñun daal dinañ gën a creuser. pour mun a xam en ak euh, ba fii ñu toll ñun lépp lu ñu fi wax rek ay ay ay ay junju la. ak euh, ni mu tasee démb ñu gis ni que ñu ngi ciy tas seen ay photo et euh, fi mu jógee ak ni ko nit ñi analyser ba fi ñu toll en tout cas daañu gën a topp mbir yi ba xam ndax li nga xam ne moom moo xewoon même bu fekkee ne depuis booba tey nit ñi ñi ngi def ay live bi ci wax wax naa la que ni am na fi benn présentatrice boo xam ne démb defoon na live mm. ci euh, li nga xam ne rek moom moo di euh, live Cheikh Ahmed Cissé mm-hmm. mi ngi confirme mi ngi wax ci loolu ba Cheikh si Cissé di tudd turi directement te moom mm-hmm. aussi weddiwu ko beneen bi aussi ñu ngi gis tamit ci benn page Facebook si loola ne mm-hmm. moom bi mu ci waxee dafa junj mais ci commentaire yi aussi ñu ngi gis ku ne di tudd turi donc ñun aussi ci la ñu basé wu pour mun leen a xamal ni que mbir yi euh, noonu la demee daañu gën a topp mbir yi ngir mën leen ko toppal lépp lu ci allah incha allah rabbi ñu